te borom njaboot gi mooy le président de la république Macky te sa tànk yi monsieur le ministre dafay firnde ni le président de la république xam na ni Doubalé c'était un républicain Doubalé c'était un grand sportif Doubalé liggéeyal na Sénégal sol na mbubu vert jaune rouge dul benn du ñaar te lim ko sol yëpp ay ndam lañ ci am. kon bu yónnee le ministre des sports Makhtar Ba mu ñëw ànd ak délégation bu am solo ndaxte njaboot gu nekk dafa am njiit gu nekk ca famille ba bu ko le ministre jiite it ñun danoo yor famille làmb mu ànd ak le président du CNG di Bira seen ñu nuyu la bu baax ñu nuyu bu baax la premier vice président Maysa Ndiaye ñu ngi lay nuyu di nuyu Manga 2 Manga 2 paaka ñaari boor la ci biir mbir mi ndaxte bu jiitee lutte traditionnelle teewul moom ak Double Less ñoo bokkoon mbootaayu ancienne gloire ba pare ñoom ñaar ñu nekkoon ay xarit dinaa ñëw léegi ci benn anecdote maa nga du bëgg ku koy nettali waaye dinañ ko wax di nuyu Abdou Aziz Guèye moom it ci kollëreem ci taxawaayam ci sport ci jàppale ndaw ñi fii ñu toll bari na fi mënoo ko wax ci benn mbër la bokk amul benn mbër bu dul ñëw di ko woo di waxtaan ak moom di diisoo ak moom di ko laaj xalaat di nuyu directeur cabinet bu baax gis nu taxawaay bi ci wetu ministre directeur des sports di nuyu Ndiouga ja Balla Bèye li nga wax ni bu fa bu ñëpp waxee mànga moo war a wax ci tuuru famille bi def nga lu rafet ndaxte sport adversité moo ci am waaye affaire ennemi amu ci bu jeexee rek jeex na loolu yaakaar naa ni Alaaji Ngañ Jaañ xam na ci lu bare bare bare Cheikh Samb li nga wax yëpp di ko tëkkale samay kàddu danga gore rek wax ko waaye li nga xam ci communication bari na buur ñu gërëm la ba ndaxte booba ba léegi yaa ngi fi toog dend ak la di ko ma saw te li nag mooy kóllëre li mooy xaritoo Baye Ndiaye jërëjëf tànk yi nga fi toog say tànk la ndaxte koo xamante ni nii day dugg ci biir géew bi ànd ak mbër mi jëli gàllaaj dox ko takkal ko sottil ko bu bàyyam dee boo taxawee nii taxaw ngaay taxawaay bu rafet te loolu seen waa kër gépp la ci ab Aziz lañ koy jiitale moom mi nga xam ne mooy sa mag ak ñoom masataak ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaale bu ma waxee ci màng ak Double Less Manga ak Double waru waruñu woon a bëre mais làmba leen boole màng booba xale la Double Less a man ci làmb ji ñoom ñaar ñu ànd dem Côte d'Ivoire pour màng bëreek Double Less il faut mu natt Double parce que Double Less a fi man mu natt ko ci biir néeg tooñ ko Double Less kii ko mu yëngal ko xool fu doole ji toll mu bëma ko ci kaw lal bi Noël Ndoye journaliste ba nu àndaloon ni ko lees mu ne ko ah mu ne ko dem Ndakaaroo te xale bi dëkk la premier jour bi ni ñëwee ci làmb ji la ko mànga dëkk bëreek moom waaye parce que booba daan duuba lees dafa jar lu ne ci mbër parce que champion roi des arènes da ci palmarès roi des arènes da nga koy bëgg a daan te mu doon nit ku am jom nit ku baax nit ku bëgg làmb nit ko bëgg famille am mànga jàkka ya ca Joal maa nga jati joxe xaalisam maa nga jël nañu bu dul benn ñaar 2STV ñëw wut si journaliste lan la dañuy ubbi jumaa dem wuti alal dañuy dañuy tabax jumaa loolu boo ko defee sa ngor nga ko defee et eh, Balla nag kii fi ñëw yaakaar naa ne seen diggante du tey kii am na fu fekk sport maxtar Ba waaye am na fu mu yóbbu sport léegi dañuy gagné di mer. dañuy gañe mer da ngay dem Congo gañe Congo ñu ne baaxul équipe fekk si la nga gañe ko ñu ne baaxul waa kañ lay baax kañ lay baax ah kese bu xel mu ne bu xel yi ñaaw yi jeexee loolu yow la yaa ko fekke fekkee gaaf fekkee la ko teg am nga ballon door ay médailles bërki dem bu basket dañ noo gañe waaye ay jàmbaar lañu jigéen ñaa ngi nii di dem te at jot daanaka ñu am ndam te loolu lépp ci yow la làmb ji am na fu mu toll woon amul woon arène bi nga ñëwee lan am fu footballu géej gi fu mu dem du final lan demoon coupe du demi final amuñu ko woon Balla ki la seet si moo fekk sport fu tuuti yóbbu ko fu kaw a kaw a kaw nan ko ñaanal ñaana it ki tax mu ñëw toog fii mu toog ndaxte kat kooku da ko wul muy le président de la république da kaa fekk ca dëkk ba doonoon maire jël ndombal tànk la jox ko ni ko yow laa wóolu ci Fatick gi gépp téye ko toog ba sport bi jaxasoo mu ne la xee kaay tat li tax mu jox la ko da bokk ci fa sport yor nga yor nga équipe football nga te it arbitre nga te arbitre la jiite ONCAV kon sa place nga toog ñun famille sport da ñun doy nga nu bu dee président de la République day xool kun mbooloo mi doy njuga Matar doy noonu doy noonu de waaw loolu daal dañ ni dama ni woon Lamine Thiam jërëjëf yi say kàddu rafet na yàlla na la fi yàlla bàyyi te sa digganteeg ministre danoo neex te askan boo ci teree kenn teral nga ñëpp te kat ñëpp la teral nag ñëpp la teral ndawala ndawala guddi la de boo dojee rek yaakaar ne yow rek yaa daj keneen daj na am am ah, ah. keneen daj na keneen daj na ci pet waxul dara am na billaay da yow yow yaat nekk ci mais ñun ñi ñëpp kenn mënu mën kenn mën ta waat teraangaam Balla nag yow li wut ci làmb am nga ko xale bu ndaw mille cinq nga ñëw matul sept ans nga nekk roi des arènes toog fi sa baay toogoon tey jii lii la dal bul yaakaar ne yow rek yaa ñàkk ah ñëpp a ñàkk Sénégal ñëpp a ñàkk Double man sama copain la woon waxuma xarit copain xam nga copain amul Double Less danaa ko wax loo xam ne ma ak moom bu nu wu ma ko wax fi lu ne lan naa ko daan wax lu ne laa ko daan yekk mu nekk sama xarit ah ñu dem ñu tudde ko la seigneur des arènes xam nga ni seigneur rëy na ah waaye yàqoo ko ah yàqoo ko de tudde nañ sa baay seigneur waaye ñëw nga doon roi de te am nga fulla am nga fayda di la jaale di jaale géejaway gépp nag di jaale écurie Balla Gaye di ñaan yàlla Double Less yàlla na ko yàlla xare àjjana